bëggoon a jotal ay kàddu rek ci sakkuteeful maam Cheikh Ndiaye moom Baye Sine Ndiaye du suñu kilifa te sakkuteeful kilifa ndigal la ñu bëgg ko yëkkatil ay kàddu ci tuuti ci suñ Babacar Ndiaye muy suñ Mbaye Ndiaye moom xaalis moo Baye Sine suñ Mbaye nag waxtaan ci du yomb ci ñun ndax ñun mag ñi nga xam ne dañoo jiitu fekkut boobu ñu amul ràññee di leen ko laaj te ñi ñu fi nekkal bi leen koy laaj muy Baye Cheikh mi di doon duñ ko koy suñ ko koy faral di laaj day faral di wax ne li ma xam ci moom bëriwut suñ bi leen dal ëpp lu ñu waxtaanee waaye du tey ñu mën cee xam ne lu néew rek li nga xam ne lu xamante xamante nit mën ko caa xam mooy moom bu dee ci wàllu bokk daanaka fu ñu xamle sëñ bi am xamle nañ ko fa ndax ñu bokk seen lépp te ñun mosu ñoo teqali ko wax mi ngi génne àdduna foofu ci Jolof mu ngi génne àdduna ci Jolof bu wàllu ay atit euh, histoire bi dapt du neex waaye nag euh, bu ñu waxee ne sëñ bi daal 1878 la mën ngaa wax rek xawaale 78 1878 ndax sorewuñ Euh, li ma teg loolu daal mooy njëlbeenam mu nekk foofu ci ron baayam ñu jàng fa alxuraan yàlla def mu teel ko wattu lool sax lu xar baaxee ndax teel wattu googu it bokk na ci li koy firndeel nee nañ am nay jamono fa mu nekkoon ak suñ fu mu suñ bidaayam mag ñi dañ naan wax suñ bidaayam sarak ji doo ko yóbbu mu jàngi leen kii mokk na alxuraan bi yàgg mu ko wax sarak ji nga bàyyi bi doo ko yóbbu mu jàngi mu yàlla def na it euh, seen mbokk mu tedd mu baax moom nga xam ne ñëpp lañ doon da wut ci ko it teel naa jot ci ñoom ndax seen waajuru bopp moo ko teel a xam bi seen waajur bu jigéen wàccee ab liggéey muy soxna Asta Mbàkke ku baax ki dafa dem Jolof daf ko fekk Jolof sax mu dem jaala ji euh, maam Xaali Mor Basin soxna Asta Mbàkke ba demee di ko jaala ji nag maam Xaali Mor Basin dana ko njabootu Asta Mbàkke gi foofu la ko jébale njabootu Asta Mbàkke loolu yàgg naa ko dégg waaye dégg ba Seex bi ma koy nettluwaat njabootu maam Xaali Mor njabootu Asta Mbàkke gi say jarbaat étale naa la leen bi jébbal googu amee ca sansa ndax sëñ bi da leen yóbbu wala yóbbu leen loolu amuma ci lu leer waaye mujj nañ nekk ci loxoy sëñ bi nettaliwaate nañ ne te eh, wax dëgg yàlla ku yàlla defoon la mu jublu woon sëñ bi la waaw jamono yi sëñ bi def ay tournée mas nañoo nekk boori xulle diggante ay xulle ak nduul ak yooyu nekkoon nañ fa moom ak maam Cheikh ñoom ak sëñ birahim maam cheikh ak sëñ birahim la bokk nday ñoom ñett lañ joxoon sëñ bi ak sëñ omar it ci ñoom la bokkoon sëñ omar it euh, mu jël nekk ci ñoom nekk ak sëñ bi moom mo jur ba cheikh ma ci kaw wax ñoo dañoo bokk nday waaye moom it daa bokk ak ñoom lépp ndax ñu bokkaatu bokk baay ak bokkaatu bokk ci seen néegu ndey itam bokk nit féete ci sëñ bi biñ fa nekkee dégg naa appel ñëw na fa ne leen seen sëñ boobu di ñëw na mi ngi barab sàngam gis naa ko barab sàngam ndax romb naa foofu mu toog foofu ki ma romb foofu nuroo na seen sëriñ bi ndax gis naa foofu Thierno ma Ndoumbe ñu ngi boo foofu. bi ñu ko waxee sëñ ma sëñ Babacar daan ne leen dégg ngeen li pël bi wax pël bi nee na sëñ bi ñëw na fee. ñu seeti ko loolu day tegtal na xër bu mu xëroon ci sëñ bi loolu ñu naan daa teel a mokk alxuraan xam naa alxuraan dafa bokk ci ay cëram digganteem ak sëñ bi lu ci bare bare wetu alxuraan la woon bi doon na ko bàyyi xel lool ci alxuraan ndax nettali nañ ne euh, bi nekk njaareem sëñ bi buñ ko indilee ab kaamil daana wax ndax jaar na ci bu ci Babacar jaaree rek di daanaka du mat a seet loolu kon day tegtale na daf ko doy la woon ci alxuraan sëñ bi it bëggoon na ko bëggu boppam ñoom ñoo ñëpp sax yàlla dafa dogal sëñ bi da a jublu woon ndax kenn ne am na yuñ ca yuñ la ciy woon jàppoon ko lëru googu doxoon seen diggante ak moom ak bàyyi seen bopp ak liñ bokk moom ndax ay jarbaatam lañ Eh, sëñ bi mas na ko wax ne ko Babacar yow ñëwal ñu dëkk daal koy defaral am néeg ci kër ga amoon na néeg ci kër gi ci njëriñ amoon na fa mu nekk na ko kaay ñu dëkk fonkoon ñooñu nag ci alxuraan seen néeg boobu ndax nettali nañ ne suñ mbàkki bisu mas naa bind ab kaamil boo xam ne moom ak waa néegum dayam boobu dañ koy bind juróom ñaari nit ñoo ko bind suñ Babacar mii ma leen nettali mu bindoon xaj mujj fa juróom ñaareel ba biñ bindé kaamil bi ñoom jël nar suñ mbàkk bi àndoo ñom dem ci sëñ bi ne ko ñi sama neegum nday leen yalla dafa def ñu wattu alquran yalla ñu defal tawfiq ñu mokkal alquran yalla bo ñoo yow ma xamne ne yaay borom alquran moo tax ñu bind kaamil bi ma indi lako yom yi borom alquran sëñ bi ne allah mbacke li nga def mat nako lol da ne ko ma la ci manam masal da ci gàttal wala lima la ci bëggale moy li la ci waxal fagul na naa ko ci rek lenn rek na leen ko ci wax ñom ñi képp ku ci bokkati sahida sahadatan la shaqawata ba'daha la yon yon bi jox yon yon yon la yon rabbil alamin yon yon yon ci yon ak yon rek wala yon yon yon jiri kamal yon yon bëgg yon yon yon yon ñoo yon xam yon yon yon yon yon la garanté yon bu yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon yon sori yon yon dama koy yon yon sama domaine yon yon yon yon bi warlu na yon ko yon na yon yon yon ci ñi nga xam ne bi sëriñ bi naan bi xam nga sëriñ Tuubaa dafa bokk ci eh, li nga xam ne waa lislaam wala xam waram xam-xam yi lislaam yi bëree bëri nangu nañ ko mooy bépp mu'jiza bu yàlla defal ab yónente jam toll na mu am ci waayu yàlla doon fa karaama bokk na ci karaama yi nga xam ne sëñ bi doon doon na ko ci yónente bi mooy li naan al-asratul mubassara bil janna sëñ bi mas na ko def ba ko defee moom sëñ Babacar mu bokkoon na ci fukk yooyu noonu la gën a xar baaxata eh, kii kii ci mooy sëy bi dafa lu mel ni ab ab bunt wala ab palanteer la ubbi yem ci ñoom ñu doon fukk képp bi mu bi ñoom ne leen koonoo min ahlil ne ci yàlla mën na leen waat koonoo min ahlil janna ñu ne ci yàlla ba mu ñetteel leen xooloo kunna ñu daan ne ko kunna mbakke bi bi defee loolu itam la ci kii maana mooy am na keneen ku ñëwaat ne sëñ bi naa bëgg nga boole ma ci mën na ko boole naa la ci am keneen ku ñëwaat sëñ bi wax ko la yonente bi waa ji ne ko bii xukkaas loolu yàlla defaloon na ko tawfeex mu bokkoon ci fukki yooyu noonu am na ñoo xam ne sax ci histoire euh, entrainement basara bil janna sëñ bi def na ko ñaari yoon waaye histoire moom noonu la waaye daal moom moom daal bokkoon na ci entrainement basara bil janna ba bu dee ñaari yoon la ko def bokk na ci benn ba bu dee benn la ko def bokk na ci waaye histoire moom li Sëñ Abdou Khadir Mbacke doon wax rek histoire dogg ca dum xel taarix dogg waaye loolu daal bokkoon na ci fukki yooyu noonu ginnaaw bi it an bokk na ak mbokkam moom suñ bileem nga xam ne suñu teqale ko ñu bokk nekk ci géde ca suñ dàkk bi sax seen nijaay moom itam nekk fa moom dëkk fa ñu nekk fa foofa la def lu mujj ci ak dundam mu mosa teqal kook suñ bileem nag tey mag ñi xam ngeen ne seenub ànd nag jekk àndin wu rafet la boo xam ne ni ñun njaboot war nañ di ko rey mooy benn la ñu doon benn la ñu doon ki xas ba mag da yilife ñu nangul ko kilifteef gi noonu lañ baaxoo def ñoo ko naxoo fu suñ birahim daanaka léppam ci suñ birahim la ko dugal dundam yëpp ci la ko dugal noonu nag ñu yàgg nañ ko baaxoo def nekk nag moom foofu ci gëde ba yàlla dogal ci moom bu liggéey loolu ñu naan mag ñi dañoo yàgg benn it noonu la ko suñ birahim féetale woon ak suñu àddu ci njëlbeen amoon nañ ay ay jaxaso ndax nettali nañ ne baa si xam ni sax moom nettali na suñu àddu daf ma daan wax sa baay daf ma bëggoon suñu àddu daf ko daan wax loolu mas naa yëkkati am mbubb sax bu dee mbubb benn mu ñëw wala muy ndima jox ko ko moom sëñ bay jox ko sëñ bilaay jox ko signal bi ba ko jox signal bi dana ko <coughs> na nga ko woon na nga ko woon sëñ sëñ bilaay na nga ko woon sa baay bi mu ko wanee sëñ bilaay ne ko xam nga lu mu jublu ci loolu na dafa may teg dafa may wax ne dalaa gërëm loolu bokk na ci ànd yi rafet yi ñu doon ànd moom daal nit la woon koo xam ne ci wàllu bokk bokk yi jublu woon nañ ko mu jublu leen loolu nag bokk na ci firnde ñi nga xam ne ñoo di ay bokkam seenu njaboot lu ëpp ci ñoom boo demee seeni kër danga ko fekk aw turam te ak dundam yàgg woon noonu ndax euh, su ma juumut fanweeraat boo ko weesoo soriwut kon ay bokkam defa woon nañ ko te ñu ñëw ginnaawam seetlu nañ loolu boo demee kër si ñaar di danga fa fekk turam boo demee kër Baay fekk fa turam boo demee kër Baay Si Ndakk Njaay Ngeeraan moom maam Seex fekk fa turam boo demee kër Baay Amidu fekk fa turam kër Baay Si Bisum Njaay foo dem daal wala nga fekk wala nga sax nga fekk fa sax turu kenn ci ay doomam am na ñoo xam sax da nga fay fekk turu Baye Cheikh kon ay bokkam safa woon nañ ko defe woon nañ ko safa googu ñu ko safoon ak defoo gi nag yëmutoon ci bokkam yi dëkkoon fii rek ci wetu sëñ bi waaye bokki boppam yi nga xam ne itam tax dëkk wuñu woon ci wet gi ñu dëkk Jolof wala ñu dëkkoon ca wetu Tiwaawan ak yooyu danañ ko bàyyi ñu ko bëggoon nañ ñu misaane ñëw fii siyaar ci sëñ Fàllu ndax bokkee ñu mën a bokk mbirum tarixa seen diggante ñu masal ñëw fii di siyaare Sëñ Fallu daanañ nemmiku lu bokk ci ñoom